attention départ imminent attention pour la cinquième et dernière course du programme départ imminent pour Bob l'épreuve voilà top c'est parti 12 partants pour une distance de 2200 mètres à parcourir sous l'impulsion de Lao

en quatrième position John Ballago Joffrey en cinquième position sixième position ndam Limomofonek. qui a fa le ki de la ni nii moom qui a war di euh, ki nga xam moom mooy Mouhamed Cissokho mu ni Medina côté Cordoue maintenant en cinquième position Moubarak moom El Capo qui ferme la marche. El Capo qui ferme la marche mais là moom moo génn bopp rek euh, ki nga Yamar Gaye suivi de Las Fatima monté par un Diène Diallo on retrouve Diofior en troisième position mu quatrième position ndam ni ñëw na fofu non légui ki nga xamanteni mom moy mooy euh, Diofior ak nga xamanteni mom moy ñoo entre deuxième position mais attention seen naa nga xamanteni mom moy adjudant mu ngi noonu si paquet bi tamit ñëw cinquième voire sixième position togondo fa ak nga xamanteni mom moy mooy Fama Der ak euh, fas bi nga xamanteni mom moy mubarak mais laaw amna na 1000 mètres wax Lat Fatim suivi de fas bi nga xamanteni mom moy Lahat en troisième position quatrième position ndam ni cinquième position mubarak côté corde sixième position commission Medina adjudant Abdourahim ak Ndeye Fama Dër ñoom fa toog mais ba tey laaw moo gën dafa teg ay loxoom rek mais ki nga xamante moom toog mooy Lat Fatim voilà ba tey ki nga xamante ni moom mooy ñëw en première position di laaw deuxième position Lat Fatim côté corps de casaque euh, bleu jaune toog euh, jaune mais mu ngi ubbil ci ligne bi ki nga xamante ni moom mooy Diofior foofu la leen ki nga xamante ni ni moom mooy mu Moubarak ci tournant le professeur Sakhir Thiam wëree Là, où est en première position deuxième position Moubarak troisième position Damli. quatrième position euh, Lat mon Andak en cinquième position adjudant Qui est en ni position, Moubarak Moubarak en première position par King Charles Manuriev, nos danseurs deuxième position Damli, troisième position Boura, quatrième position Medina. Attention Medina cette fois-ci. Attention Medina, cinquième qui est remonté ni moom mooy adjudant qui nga xamante ni en septième position d'Abrahim, attention El Capo nous sommes en quatrième position attention El Capo voilà Bataille, Moubarak génnaan dans le ci li nga de Moubarak gagne na ko ci bi deuxième position Damli, troisième position Medina quatrième position Kifanek de Bura. cinquième position El Capo voilà nous ngi le ci tournalu Alpha Ndiaye Moubarak gagne maintenant Damli gagne en deuxième position Moubarak troisième position Medina quatrième position Boura cinquième position Kifanek de El Capo Damli de plus en plus fort Damli passe à Siaman Force bu force rédemption Roberto attention ndam attention ndam attention ndam premier ndam deuxième Moubrak. troisième euh, le numéro un Médina quatrième Bourak. cinquième diggante El Capo ak qui nga xamante ni moom mooy adjudant El Capo ak adjudant. ndam li moom moo raw nekk doomu pas Ama force pas bu la force significativement Roberto. bàyyeekoo fi nga xamante ni moom mooy équipe ren professeur Sakhri Thiam li mu def ni tey nag wane woon na ko dimanche bi nga xamante ni moom la ñu génn ba tey moo ko waroon moom moo ko waraat mu signé li nga xamante ni moom mooy première victoire am ci euh, saison ren bii nii bàyyeekoo équipe ren yi nekk doomu Chaman Force Pape Boule Air Force Siripi Kane ren lam sama Roberto Kumbis Diaw nekk doomu Garuda far Garuda Danhill Danzig mu nekk li nga xamante ni moom mooy rakku expert comptable table ndam ne tey moom imposé wu devant face bi nga xamante mom moy mubarak ak ki nga xamante mom moy La medina mais lolu dañuy xaarandi li nga xamante mom moy le résultat provisoire waaye daal li gën a wóor moom mooy ndam li yéen a gis noonu armada réuni bi entre ndam li ndey Fama Der ak ki nga xamante ni moom mooy euh, Law ñu àndandoo di jubilé écrit réeni aussi signé li nga xamante ni moom mooy troisième euh, quatrième réalisation si groupe 1 ginnaaw bi ko ki nga xamante ni moom mooy euh, bi nga les euh, ñaar Bura am les tay gis nga ndam ni dal rejoindre raw li nga euh, groupe pour la première fois depuis le début de la saison entraîné par Modi Kassé Mohamed gis nga Sissoko mom moko war ndax mo femmes, mais gis nga deux dimanche mu Sissoko moko ndam ni a triomphé fi nga femmes, mom moy 3 minutes 05 secondes. salaam euh, internet di amaat